Saa Wolof est-ce que mënuñ jàpp ne suuf si lañ doon utiliser pour peut-être def pression ci ñenn ñi. non loolu kay xam nga far ba daa xadd kaaba gi. Mhm. xam naa ancien patron Thioune moom dana dana amati lu mu waxaat ndax. Mhm. ndax boo ñu dimbale woon. moom baax de daa baax daa mel ni ay waay waay waay affaire ba yàqu na laay am na sens walaay. jël naa moom jël naa moom jël na. moom hmm? moom moom moom moom Farba. waaw loolu man maa la wax loolu. ku nekk jël. Thierno Alassane jël na jël naa maa la wax loolu. jël na dafa mën a wax jëlul. bu waxee ne jëlul dinaa ko wax mon dinaa wax montant bi dinaa wax ki ko ko jox. ah te soo soo gisee soo gisee waxuma sax ki ko jox. kooku dama koo respecté lool. mais bu du woon loolu dinaa wax ki ko jox. monta bi ma jël ma wax ma wax ko ko montant bi ma jël ma wax ko man non man du ma wax li ma jël maa ngi xaar bu mu tontu boobaa ma leeral ñaar yëpp li ma jël dinaa ko wax li mu jël dinaa ko wax man dinaa ko wax waaye Pape li nga wax nii rëy na nii. xam nga nit da ngay assuré corruption di jéem a jaay man du jub du ma lekk xaalis te mouvement yi Thierno Alassane bu mu ñu font nag moo dàq dóor ay jël ay enveloppe fii di ko def ci biir poosam nii. waaye yow. man maa wax de man tontu. maa ngi xaar tontam dinaa wax montant bi te dinaa ko. yéen seen montant ah, bi montant bi ndaw xam nga xam nga xam nga man li may ci kii ci affaire parfois sax nit ñi naan non nangam répétition pédagogie la. te comme ñun dañoo mën a fàtte loo ñu bëgg a nëbb rek bind ko ci kayit. fi ne nii li cuun def nii lu am solo la liir. mais comme gars yi ñoom dañuy war a déggal seen nopp pour comprendre comment fan la dëkk bi tolloo xam nga fa dëkk bi tolloon. bon commencé woon na sax jékki-jékki euh, ñaar jékki-jékki ne mes ne menteng El Salvador moom na la wax moom li mu daj. expliqué nañu ko ci torture. nee moo tax mu dem France mu daw. daw. dafa exilé dañ ko doon rey loolu mooy wax ji côté mystique ak yu demee noonu kon seen kii nag parfois nga day day laal yenn saay de man rek keroog toog naa daanaka di wax li may wax mel ni dama ko fàtte keroog bi ñu nekkee ci kii bi may ko après dama dama taxaw dem ba kër ga am yu ma defaat yu fi ceddo ak yooyu sama serviteur Clédor keroog mi ngi nekk en plein daanaka di loolu quoi maanaam affaire yi nii seen kii dafa metti de. seen ak mbir yi nii taxaw nii di xeexal askan wi rek di wax nii mm-hmm. dafa metti trop mm-hmm. waa jooju bu ñu la waxee liñ ko li mu daj ci mystique xam nga Moustapha Cissé Lo mi ngi wax démb parce que problème bi mooy ñoom dañu yaakaar ne loolu ba noppi maanaam wóolu woon seen ay sëriñ defe woon ne xam nga loolu nag moo ci neex quoi parce que gis nga affaire u njabar boo ko gëmee mm-hmm. xam nga doon gars yi fële nga xam ne comme yenn yeneen dëkk yi ñoom dañuy jàpp ne li war a def rek mooy solution mooy jàpp la rey la physiquement wala def la leneen ak leneen. mais fii parfois du du du ko jar. maanaam mystiquement ñu lay euh, jógal wala yenn affaire yoo xam ne bul comprendre. éliminer la carrément voilà mais waajooju dafa dund lu metti dañuy doon waxtaan euh, waajooju ci koo xam ne ñëw dëkk boo xam ne nga bokk fa amoo fa daanaka dara jékki-jékki falu wala sa goro sa sa sa sa rakk daal a neexu ceeb wala moo mën a sëy mhm. affaire yi ñëw rek nii maanaam Macky li mu defar sax maanaam euh, non Marème fay ci côté am sax defaru ko ay ay mbokkam mais nga jël ndar mel ni sa moomeel la ndar langue de Barbarie ay goxu mbaaj euh, gétt ndar hydrobase yooyu géej gi da koy nangu mhm. ak bël bi ñu gis feneen foo xam ne fu ñu leen war a jox ay ngaleen wala ay neneen nga demaat foofu encore teg ci loxo ñu jël solution defoon li ñu doon autosuffisance en riz mm-hmm. avant 2002 loolu lay wax noonu ci mooy bi ñuy def ci affaire autosuffisance en riz mm-hmm. en tant que ministre agriculture bu ñu doon bi Pape Ablaye Seck ci Macky Sall comme Mabouba Diagne la maanaam tey nit ñëpp jàppoon ne dafa xaraj mm-hmm. ci lu demee noonu mais autosuffisance en riz boobu bu ñu lay wax sax bul comprendre am te bu ko sa loxo bi laal la mobiliser nañ indi ay engins mais dañ ko mujj door seen biir suuf si ñu am pour récupérer ko beneen bi mooy lu Macky Sall yëkkati pour ne dafay jàmmal Sénégal commencé par référendum 2016 bi. Hmm. ak ak 3 de la décentralisation de la si yoon ñaar yooyu ci la mag Macky def ba commencé du Macky suuf rek la xam mag Sall xam nga suuf suuf nii li superficiel nekk ci kaw nii comme nga dóor ñu ne ceer euh, Farba Ngom nii mu ne jël naa wala naan mais la ca biir suuf a gën a garaaw. Macky day anticiper gis nga bi ñuy wax naan les nouveaux droits comme naan les ressources naturelles appartiennent au peuple on utilise pour améliorer leurs condition de vie yooyu par exemple bu njëkk moomeelu Sénégal lépp lu ci nekk ci li ñuy wax domaine national wala loolu c'était l'état maanaam l'état tey moo lay fekk bu njëkk boo jëkk yi kon sa sa sa tool tey dara feeñ état day daal di ñëw jël ko parce que yow dañ la ko jox rek nii. mais ni mu defee dafa war a a mel ni sénégalais yi daf leen di joxaat seen yëf da leen di delloo loolu moo doon puits bi quoi nga xam ne bu boobaa ci maire yi la jaar mooy comme genre maire bi nekk booru euh, Jilax te commune euh, te te Jilax bokk ci commune am dama xamul non du jas kii la kii waaye dana ñëw waaye euh, côté Ndengler ak moom Ndiaga ñaaw ñoo séddoo entre Ndengler ak Jilax tur bi laay fàtte te waa ji sant Diagne te ma doon jël dossier doon ko indi fii di ko traité tur bi dana dana ñëw mooy fi Babacar Ngom am tool yeeg ak ak yeneen gaay yi mais garaaw dana ñëw. Mm-hmm. mais ci loolu li nga cee gisee mooy benn Farba Ngom boo xam ne loo laal daj ko. booleel la ko ak benn arrogance xam nga kiy waxatul ne jëlut. xam nga kii moom bu ñu demee ba mu naan jël na keneen ku jël lay voilà lay lijjanti maanaam di wane ne kii di jaay da daa <laughs> baax moom moom jël na voilà moom jël na léegi nag moo tax euh, gis nga loolu mooy loolu wóolu sa bopp la mooy dem nga ba jàpp ne noot nga Sénégalais yi moo xam ci répression wala noot nga leen ci affaire u baatin affaire u mystique loolu rek lay mën a nekk parce que yow bon man jàpp mu ne Farba Ngom am na fi benn fit buy war a tax kañ nga ko xamal alal lu la neex def sa doom sax wala sa doom mag sàcc ci sa kër deux cent cinquante million jékki-jékki dem ci benn borom bi ngeen moom lañ ko jox. romb police su Séné euh, dakaar yëpp dem ba Thiès wut fa sa benn sagaru policier kii di que xaw ma nan mu ñëw jàpp doomu jàmbur torturé dóoru wulli ba mu nooy. Ibu Ibu Sow waa ji fi ne nii tànkam yi ba naka ni boo kiiyee ma ngi waroon a ñëw sax amaat ak émission ak man. mais kooku bu la xaar dinaa ko indi semaine bële parce que loolu ñun dossier yooyu faaw ñu commencé waat commencé waat di di di di ci kii quoi parce que madame waaye jooju ngay wax ni ak affaire yi ak bëri victime ci woon hmm. affaire yi ak a bëri ay victime te ndeysaan ñooñu defuñ dara lu mooy rek bëggoon Sénégal gis lu ñaaw te nag boo jógee di ko def kii mooy njëkk a ñëw xëpp mooy njëkk a ñëw boo d'accord ñu doog a xupp nga daal di dëgër ñu commencé def liñ bëgg a def dangay mujj daw ba xet mbaa dootoo ko fekki tey dëkk bii lañ nekk tey ñu ngi wax dàgg xol ba loolu la ñuy wax porteur porteur d'affaires loolu mënoo koo defar loo def loo n'importe am na ñoo xam ne boo leen gàccee say affaire mais da ngay xëy xëy ñu ne la amatoo fi dara. man gis naa homme politique benn chef d'entreprise boo xam ne nii am na ñoo xam ne ci jamonoy Wade lañ ko ko defoo mu pare tey ci alal ji li muy yore yëpp li ci ëpp du alalam. est-ce moo fi ëpp ah! ak Omar Sylla ah c'est la même chose am na ci koo xam ne fii moo gën a rëy laa mel boo waxee mu naan si euh, parti de nangam ak nangam nangam laa woon damay bañ a tudd foofu mu xaw a euh, euh, fragra ba. comme Touba nga dëkk bàyyi Roussel ñun ñu dëkk Dakar ñu wax ko. non non man man man non aw ma ci problème non man aw ma ci problème yooyu. xam nga. maanaam pour wala leen nekk chef d'entreprise yor média di rëy làmmiñ wu muy rëy te fekk c'était la même chose. Mm-hmm. yooyu moo yàgg am ci dëkk bi te yooyu moo war a jeex gis nga yii ñuy réglé nii. comme ni Fadilou Keita wax jaroon ñuy yàkkamti bëgg ko talan ci ay un ku nekk di xëy ñu naan nii wala nangam. on prend notre temps. Mm-hmm. jël suñu temps jël justice li mu war a def xoolal yàlla baax na ba tribunalu Géejawaay bële ñu doog a pare. Mhm. te Cuun parc financier bi fa lañ ko installé su ma juumul ah Cuun. non foofu lañ ko naroon kii mais. dañ ko fa pour pour des raisons de sécurité dañ ko fa war a delloo foofu lañ ko war a delloo wax dëgg yàlla foofu rek baax xool sécurité ba ca war ñu ko fay def ñi mu arrangé ñi mu intéressé suñ xëyee ñu dem foofu. comme ça parce que embouteillage bi ak Ndakaaroo ak yooyu ñu naan tay la nangam nangam ku mu ñor bu boobaa nga dem. Mhm. man pour man foofu mooy l'endroit bi gën a idéal mbir. sécurité yow yaay indi fii da nga fee soxla bu doon dakaar fii nga soxla euh, cent policiers wala deux cent policiers bu dee foofu unité foofu mille yóbbu ko fa mu jeex. loolu mooy wax ci mais. Mm-hmm. ñu bañ a yàkkamti. kut ko kut wala naan parce que li ñu soxla ñun xamul lu ñu soxla. Mm-hmm. maanaam El Malick Ndiaye xelam du ma a xalaat muy luubal. Fadilou kayta xelam du mën a xalaat mas a xalaat maanaam moyen de dissuasif la même bu fekkoon da ngaa am El comme Sonko El Malick Ndiaye la jëloon comme exemple ma jël ko bañ a tudd ci ne moom war bañ a xalaat ne bu bëggoon a luubal xam ne bu luubalee lii ko ci fekk si sans par parloo wala leneen ak leneen ak leneen dossier yi temps bu mu war a jël na ko jël jarul benn yàkkamti parce que dugg ci dossier pour yàkkamti. Mm-hmm. ba pare après salfaañi àqu jàmbur ëllëg te loolu bu amee vice de procédure mooy waaj da a bàyyi mu dem yoonam. yooyu lañ war a éviter lépp luñ ciy def bañ a def comme ala Macky Sall lépp luñ ciy def def ko ci tekk ak tey temps bi mu ñu war a jëlee ñi dara naqari naqari na la mais da ngay xaar. Sénégal doxal ko jafewut ministre de la culture ma nga ca culture ba justice heureusement bu ñu amee justice bu mel ni euh, nu mu tuddati Ousmane Diagne mu géré ay dossiers premier ministre bu ko neexee mu wax ci keneen bu la neexee nga wax ci télé ak yooyu mais xoolal nañ ko gérer fee journaliste culturel yi bu leen neexee bu leen xëyee nekk seen émission culturelle ku ku bëgg fu la neexee bu fekkee askan askan di ko teg benn par benn man luy joxe nga mel ni Aziz Sam bu nekk os non tay moom saison saison li fi nekk ci dossier judiciaire ah. en tout cas star star fait peur tuur mun nañu xaar euh, suuf yi defee woon woon ci yenn ci ay daal di ko delloowaat état bu Sénégal. ah déet lii ko dañ koy nangu day dellu